wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñu borom subhanahu wa taala dogalati nañu ñu dellusiwaat ci béréb bii nga xamee ne moo di 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan waxtaanu mbokkoo waxtaanu xam-xam waxtaanu daara ndax itam loolu mooy tax ñu fi toog altine ba alxemes ci weeru kor wu sell wii ngir waxtaane loolee moo tax tey ñu dalal fi koo xam ne kii gëj na fi lool nag muy Cheikh Moussa Touré mi nga xamee ne nangu nañu xam-xamam nangu nañu itam ak taalibeem ca fa war a defee ak taalibeem yàlla dogal itam muy taalibe Cheikh Moussa Cissé mi nga xamee ne ñoom xam na usra boobu ni mu tëdd yépp ñu dalal ko fi itam yàlla dogal itam mu am ànd ak mbooloom itam te it léeg moom loo ko wax rek daf koy daal di delloo ci yàlla kon ki nga xam ne kàddu bi yépp dafa naan la yàlla kooku moom fa ñëpp jëm dafaa jiitu gaa yi kon dafa naan loolu moom mooy mooy mooy xam-xam kon nak euh, Cheikh Moussa Touré ñi ngi lay nuyu dila jox kaddu gi nga nuyu ñu dugg ci waxtan bismillah ma koy assalamu alaykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbokk julit yëpp. ak fu mëna mën nekk ci alam bi. dila nuyu dila ziar ak mbokk ñu fekk yëpp. dila ndokkel itam ci weer wi. ñaan yalla mu nangul ñuko fulal ñu yool bi fekk mhm. ko kan bëree bëri jaaratullah incha allah barikalla tawakkal mais Cheikh Moussa Touré yow ci sa ci sa ci sa wasila euh xam nañu ne Cheikh Moussa Cissé mom ca nga jokk wa lan moy lan lan la usra bi demee ba ci Serigne Touba parce que loolu dama bëgg xam sen digënté sen mbolo mi ak ba ci Cheikhul Khadim ak wala bok njabootu Cheikhul Khadim bok ok dafa naan mooy moy gën a gàtt. waaw moo waa kay ñu ngi lay nuyu baax loolu dafa naa ne waxtaan na ci lu bare bare bari leeral nañ ko ci mhm. maanaa yoonu murit doon ne ci sax Moussa la tàmbalee mhm. hmm. te lu bokk ci yoonu murit sax mhm. Moussa daa judd ci yoonu murit maanaam dafa def cee judd cee judd hmm. way juróom di sëñ Xoroja mooy ki fekkoon sëñ Touba jëbbal ko boppam keroog ba mu ko joxee boppam it may gàttal rek daf ko boolee ku ñox suñ amatu faa jamañam na ko tarbiyal ma ko boo ci noppee nga indil ma ko la ca mat def ma def ko ca bi sëñ Amadou Faye juma noppee ci moom ñetti at da ko andil sëñ Touba. est-ce que. ma jox ko kaamil alxuraan na ko boo demee toogal danaa la boole ñu la liggéeyal mhm. booba solpagut gat mhm. te ndaw la te famille bi mbokk itam kenn du ca murit moom rek cay murit mhm. mu ñibbisi fa mu jógoon nekk ak ñoom mu jafe lool te metti lool waaye xam nañ li ko sëñ Tuubaa moom dara du ko dindi ci loolu la nekk ci loolu la nekk ci loolu nekk dañ nekk ci ay jafe-jafe yu bare nag hmm. ndax jàpp nañ ko ci yoonu murit tëj nañ ko ci Kaolack gi hmm. ci bàyyil yoonu murit waaw bàyyil Sëñ Tuubaa loolu moo tax bañ tëj ko ci bañ ko ci biñ ko bàyyee mu jibi si seex bi na ko génnal kanton bii ndax seex bi bëggul murit te it say bokk bëgguñ murit hmm. te la jógee sañ ci daaru gii mu ñew daru sanc ko sanc daaru moo ko sanc kooka leen moo judd Cheikh Moussa kon Cheikh Moussa da judd ci yoon ah ta du tawam amna mak ñaari mak ok waaw eh, ci lolu Cheikh Moussa Touré fokk ñu dugg ci naka nga naka lan moy sa digënté ak talibi ci doxalin ndax lolu loolu ñu Serigne Touba la. ndax waaw suñu diggante ak talibi yi mhm. maanaam buñ ci tebe dara rek. day gàtt. ay ca boobu. ndax ñun dañu cee boole. waaw <laughs> waaw dañ leen a boole yaakaar naa bala ñu ciy doon dara ki ñu ci booleel. waaw foog moom ci lañ njëkkee. ay ca mooy Serigne Touba. aywa ay ca Serigne Touba moo lañ ci boole Serigne Touba boobu moo leen ci boole. waaw te Moussa boole ci sax Moussa. ay ca ndax ñun moom lañ fekk jamono fekk suñu mot mhm. waaye suñuy maam ak suñu mot xolija àndoon. suñuy baay ak sax Moussa àndoon bañ judd ci ñun tam. Mhm. kon moo ñu ci boole yar bi nag benn yar du ñaar yar waaw mooy yarub sëriñ tubaa rek rek ndax sëñ Mor Xore sëñ tubaa ko yar da ca moom moo ko ci def koo ka yar sax Musaa moo ñu yar kon du ñaari yar mm-hmm. benn yar rek la yar boobu nag mooy yarub lislaam it nag mooy yaru ahlu tasawuf it nag mm-hmm. waaw su ko dee nag yar boobu leen na alhamdulilah ci la ñu doxee ci la ñuy waxee ci la ñuy jëflante ñi àndal comme fi suñ sëriñ jaaroog ñun rek. Mhm. kusaay kuñ ànd ci port la ñuy jaar yow. jub ko ci rek. rek allah est ce que du gaa yi duñu wax ne yéen fay da ngaa xaw a dur xam wala wala da ngaa a tegu ci yoon wi rek wala. déedéet wala dëgg gee métti wala lu xew. xam nga li ñuy li ñu xamal li mën a war a wax dëgg yi méttiwul xëy na ñu ko xamut waaye lu ci métti amut ndax ni nit ki war a mel yarub taalibe ahlu tasawuf ni ñu war a yaroo. dafa nan yar la bo xamne dafa am ay sew sew ndax li tax moy tarixa ndolal la yaakaar naa ne bi mi tàmbalewu ca bala nga am sañ-sañ dugg ci da danga doon ab jullit ci lu wer ak condition yi nga xamne mom la nit wara rappel ci jullit lepp nga matal ko doga a sañ a dugg ci tarixa hmm. te bu la neexoon nit yooyu boo ko matalee bu la neexoon ba ñu dugg ci tarixa te nekk ab jullit. waaw ku ne sañ na ko. kon nag kooku am na sew sew bu fa nekkoon kon tarixa bi kon nga xam ne bu la neexoon bañ ca nekk te doon na jullit. Mhm. kon boo ca nekkee ndax warul am beneen ndoolal boo ca mën a jëlee boo xam ne boo ci nekkoon doo ko am. ok ndoolu boobu lu mu war a doon te ba nga cay dem gëm nga yàlla. Mhm. ba sa xeeti ngëm yëpp mat mm-hmm. ndax ponki lislaam lépp mat na te yaa ngi koy def na ko mënee mm-hmm. loola doyoon nag mu nga tuyam ci xam nga say farata xam nga say sunna mm-hmm. léegi nag kon boo duggaati ci tariixa ban awantaas mu ngi ci war a mën a xanaa du li nga fa yóbbaale ndax li amoon nga ko ba noppi da jàppat sëriñ wala nga diko ko ñaan wir da mhm. julit nga mhm. ya nga julli say waxtu mhm. du war say wer joxe sa azaka laaj sa mak lepp lu diina sant yaa ngi koy def niko ko sëriñ def yeen nag wëlbati ko naa yaakaaraat ko nag yomal xiyam ba jebal ko sa ko ko warul am fum jaar ak yow. Ah, waaw ci waaw ci waaw ah? deug deug waaw. war na war ah, na def ci yow waaw. ah wax dëgg yàlla war na am war na wax dëgg yàlla waaw. waaw bu dee dafa laa ba ñëw. waaw war naa am loo ko mën a. dooli loo ko mën a dooli loo xam ne dana tax gëm yàllaam gën a dëgër. waaw mënta jaamu yàllaam gën a sell. alaa kulli aali. mënta ñàkk. alaa nag taale bu jóg loolaa tax a jóg sëriñ bu doon sëriñ loolaa tax a doon sëriñ taale bi mooy kiy sàkku. Mhm. sëriñ mooy ki woote xam na. Mhm. ki ah, kii xam kay ki nga xam ne xam-xam lay sàkku ngërëm lay sàkku yow mi nga xam ne yow yaay ki xam ndax doo ko xamal tax naa lam xamoon doo moom nga ko xamalaat te kenn du yàlla ku dul yàlla mm-hmm. te diina ci diina yàlla la dégg nga na ko sëñ waxee tariqatuna haasa mustamidun bil kitaab wa sunna Mm-hmm. tere xam yëpp foofu lañ ko woon dama kon sëriñ bi léppam lépp yàlla la. alaakulli ali. kitaab la sunna la alquran la ak sunna ndax royuñ ko du yonent bi aleyhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. Mm-hmm. kon mooy imaam bi su ko defee na kon turuq yi kon li leen tax a jóg leneen la lu rek la obat ci jàkka ji xoor weer wi baax na naam. waaye leneen leen tax a jóg te loole tax leen jóg mbirum baatin la baatin nag soo waxee ñi ne baatin baatin mais baatin mënta ñàkk ndax saayir bu ñu ne saayir na baatin hmm. ñu ngi wax saayir du wax baatin mënta ñàkk ñoo ñoo ñoo langoo ñoo lang yàlla ko wax hmm. ndax saayir lu am saayir am na baatin hmm. am déet aywa kon nag bu ñu laalee saayir war nañoo mën a laal baatin te bokkuñ nag ñoom ñaar waaye mënuñu taqaluñ ndax ñu ànd waaye bokkuñ nag kon mbirum batin momu len mën nañ ko tënk ci len kep moy sëriñ bi day fexé ba defar xolub talibé bi ba mu gëm yalla gëm gu wër ba xamna dootu ko bokalé kenn mhm. lool nak manam mu ràññi nit man na julli man na war man def lepp ta tawhidam ci des mhm. parce que tawhid ci yalla deug deug waxuñ takalum waye taaruf lañ wax mhm. taaruf na xam rek lay doon takalum wax rek la wax nak akam Hmm? wax ak xam ngir wax na lum mu xamul ba tey waaye xam na moo gën a wóor kon taw tawhidu taaruf mooy taw ki nga xam ne mooy tax jaam bi wéetal yàlla boobu nag na nga ko suñu wax lil aarifin la wax bii lil xumoom yi kon bokkuñu bii xam yee ko moom mooy hmm. takkalum bii aarif yee ko moom mooy taaruf hmm. nak nga des nak yow ya xamé kan moy xam kan moy ya, kan, kan arif ku mu neex ya, nga ne man am la ku mu neex ya, nga ne man arif la waye mu takale na bokkuñ xam bi ak kan, arif bokkuñ ki takalum la ci la yam ki ci taaruf ci la ag taaru na moy xàmmee ba do bokal yalla ci turam di jëmmam du melo di jefo wax ni ci dara namu mel mom rek ko mel la def mom rek ko man koy wax nam tudd moom rek ko tudd yàlla dafa wét ci lépp mhm. bi saatihi wa sifaatihi wa asmaihi wa afaalihi bokku ci ak kenn dara te kenn ko ci fekk mu wét ci lool ci lépp kon yow moo tax na la laysa kamislihi shay'un laysa kamislihi shay'un waaw kenn mënu la yàlla moom duñ ko misaal ci dara te duñ misaal dara ci moom moom yàlla moom yàlla waaw wa huwa qadimun maa lahu bidaaya wa soo baqa maa lahu nihaaya mhm. la moom subhaanahu wa moo tax kon yow sa ay njàngale ak sa digganteeg taalibe yi léeg sax li ngay tudd yàlla lu mu bari moom faf ñu tudd la yàlla yàlla faf waaye léegi loolu moom est-ce que euh, dafa am wuute wala déet wala dafa am déggin yu yu nit ñi mënu a comprendre lu xew xam nga nit ñi mom kenn ku ne ak sa déggin mhm. kii wax mom na wax rek waaye kenn ku ne ak na ngay déggin ndax dégg yi mënuñoo yem mhm. xam-xam yi mënuñoo yem loolu buñ ko xamoon rek dañ noppat yu bari mhm. waaw boo gisee sëñ Tuubaa di wax ne di netti téer bi ne kalaamul awliyaaw isaa daak yàbbalit waxul kama xale sëkkil abdul wudoot kalaamul awliyaa lastu afhamu li annani ana ana wam hum mhm. waaw loolu sëñ Tuubaa ko wax sëñ ko wax ci lu wér suñ leen di wax góor ña mhm. waxal la waaj waxoon ab dugg doon ne wax góor ña xaw ma ko lastu afhamu dégguma ko ndax man bokk ma ci ñoom mhm. man man laa ñoom ñoom lañ mbir boo ca bokkut bokk la ca baala ak ñi ca bokk loolu mooy màndu te moo gën a demtu mm-hmm. mbir moo bokkut bokku ca baaxal soo ci bëggee bokk na gëstul ba xam su jaree bokk nga bokk su jotu bokk ca waaye bokk la ba noppi nag lu ñu wax nga bëgg koo xam lu ñu nga bëgg koo xam ne te bokk la ca di critiquer ah wax dëgg yaa ngi dugg nag ci loo xamul mm-hmm. hmm? est-ce que loolu amul amul benn amul benn wóote ak enseignement Serigne Touba li ma wax ni sëñ Tuubaa ko wax waaw waaw loolu ah gannaaw waaw loolu la moom amul comme amul wuute moom. te it. sëñ lu mu doon woowee jaam yi yoon bi mu yoon bi rek tax sàkk nañu yoon bi muridu laahi. Mhm. muridu mooy ki nam. Mhm. koo nam. yàlla laahi. Mhm. waaw ku namu ci yàlla waxtu àgg yàlla. ku àgg ci waroo ko xam. kon loolu la di kon kay yoonu xam yàlla la mm-hmm. jaam bi nam ci boromam war na ma a àgg ci borom bi ku àgg ci borom war a mën a xam borom bi waaye nam ci koo dul àgg nam ci koo dul xam kon nam bi lu mu jëriñati mm-hmm. moo tax mu waxal na le wa man tawasulu bi waasilil wasal mm-hmm. wa man tawasulu bi ak sil fasal waasil mooy ku mën a xàgg te mën a xàggale ku xàgg te mën a xàggale mooy waasil wa man taw si waasil wasal mhm. ku jox sa bopp ku mën a àgg ku ci yàlla mu xàggale la waaye xag sii nag mhm. ne goj bu jotul teen mënta génne ndox ku xàggut mën a xàggale mhm. aywa boo defee nag moo tax nag sëriñ dañ koy tànn kon ah waxtamil rijaala qabla suxba wala tusabi xumran aw saa rax ba suñ tubaab wax tànnal ki ngay àndal ci yàlla bu la ànd ak dof wala borom xamam teef ki xam ne doole ji la xemam ci yow war sa bi la xemam ci yow bu ko jolee taalibe boo co doortoo ki nga xam yow sa wërsëg rek la soxla yi nga xam ne doole ji la soxla nga defal ko mm-hmm. warsagu la soxla nga jox ko yi foog mu ngi am taalibe nga bu amatu dootoo taalibe ah loolu day na war ci wax ne kon nag tànn leen sëriñ fi nga jëm dangay seet ñu fa jëm nga jox leen sa bopp ku bëgg dem ci yàlla utal ña jëm ci yàlla mm-hmm. wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himmamun maaloo faay bi sëriñ fil uquwaati yàlla na sëriñ Tuubaa ne boo bëgg a dem seetal ñi nga xam ne ñooy dem nga ànd ak ñoom maanaam ku bëgg a dem ci yoonu yàlla da ànd ak ña jëm. ña jëm seetal ñi am itte ci yàlla jublu ci yàlla nga ñee leen nga xam ne ñii niñ mel su ma sañoon niñ mel ma mel ko ne na xoolal ñuy toroy leen nit ki ñee rek lay roy. Mhm. waaw nga xam ne boo sañoon nam mel nga mel ko kon seetal fa jaar rek nga jëm fa teg sa tànk rek boo ko wàccu rek incha allah mën nga àgg fa mu mhm. waaw te yow te yow discours bi li ngay wax ni. mom ngay wax talibé yi daima ah dañ len wax parce que loolu lañ xam di ndax li ñu boole dëgg rek kañ boole te ay nit lañ duñ ay dof suñ leen waxee dëgg xam nañ ko suñ leen fi ne xam nañ ko te moomuñ leen ah su boobaa suñ leen waxul dëgg duñ leen di wax te mooy liñ liñ liñ suñ san ba xamar te mooy yàlla lim def ci ñun rek la ñuy def ci ñoom lim ñu waxoon rek lañ leen di wax xamul yokk amul wàññi xanaa gën a leer rek. c'est ça xamul yokk wàññi. waaw bu dee lii kay jot a dingat lu leer kay. luñ ciy dégg waaw ñu ko xamul te it comme nit ci xam loo xamul xamoo ko. ak ñoo xam ne dañ foog ne moom adduna nii rek la mën a wax changement amul yokkute warta am li fi nekkoon daal jeex na gaa ñu fañ noonu kenn dootu fa ne lañ xamoon kenn dootu xam ku mel noonu bu déggaatee leen lu niroog loolu weddi ko. te nag dëgg-dëgg dara jogu fi nag. Mm-hmm. waaye boo jàppee nag dara la fa nekkoon démb nekkatu fi la gaañ xam ne kenn dootu ko xamati dañ meloon kenn dootu ko melati wax dëgg yàlla boo déggaatee ko aw yoon woowu leen baa muy jéem a mel noonu ne kay da nga koy koy jéem a waaye fekk nag jéem a baax nag ba baax dara nekku ca mbaax gaa ngi fi ba tey. Mm-hmm. que yàlla mi ko daan joxe mu ngi fi te dañ mukk di ko joxe te ñu ko amoon ñëpp dañ dama uti ko. kon kay man ta dem kay bàyyi ñu ma dem ñom dem te bu ñew bu leen weddi ndax demul hmm mais sa gis nga dañu yore ay talibé yépp ndax xam nga sans sans masque yépp moom daanaka mbolo man na leena top waye ndax yow discours bi nga wax ni njortu nga ne fii ñu toll ni ñëpp ci lolé xamna ni mom lu xawa lu xawa yema na ndax li bu bu enseignement Serigne Touba lu leer la ndax njàngaleem Serigne Touba amul lëndëm lëndëm lepp lu leer la su ci ñepp tegoo kay kon wax dëgg yalla war na mëna am kenn baña yëkëti lamu ñu kenn tek ci kenn parce que li nga wax ni amu gisun ci sik nga wala dafa am ñëpp duñ ci manté ko mom ndax yalla ko bëggé mom té ñepp duñ ko mëna tax yalla ko bëggé mom di te Moussa daan wax ni yeesal go gis fay nitu yeesal goo gis bari ñoo xam ne borom day yeesal nga foon day yàq hmm. te boo yàkkamtee mënoo muñ foog nga wax hmm. moo tax amul kenn ko mosoo wooteel yàlla coo topp la hmm? kenn ko mosoo wooteel yàlla te woote bay dëgg te coo topp la waaw dëgg ba ci yonent yi kon jeex na coow loolu nag du fi jóg la gaa ñëw xoon dem ku wax tey coow la leen topp la Sëñ Tuubaa mi lu ko topp faw fi sëriñ si yemoon bu fa yemoon ndax danañ ko coowee déedéet xam ci téere bi jàngale alxuraan julli xoor xasakeeg xam ci loolu kese ndax su boo kon tey coow li ngay dégg ci yoon murid ndax danga ko dégg mm-hmm. kon xakk saa dafa jéggi loola loola ay joxañ la lañ doon joxañ nag du ko jéggi ba àgg ci lañ doon joxañ tegtal xom mm-hmm. yëkkati ko ne mu ngi nii ñëw la ñuy def loola moo war a coow li topp ko nii nga xam ne yoon wi doxee ñi fi nekkoon ak ñi fi fekkoon xamuñu woon doxin woowu leen góor gu ñëw sukkal sa morom su jootal ko liggéey jox ko sëriñ si fi nekkoon lu ñu xamoon àllarba dibe la sëriñ si amoon àllarba dibe la ñu ñëw ne man du ma séddoo parce que lu tax mooy lam yor. lu doon jàngale rek la. ci loolu la am la sëriñ am ci la am waaye daf ko romb mm-hmm. su ko dee nag loolee nag moo tax coow li topp ko mooy yoon wi waaw mooy moo tax nag loolee ku ko laal itam foog coow topp la moo tax wax ni jaddidu tawxiida wal furuuxa ma tasawufin wal buruuxa dafa yeesalaat pour yeesalaat moo tax ñu foog ne sax Sëñ Tuubaa dafa ñëw wooteeb tariqa wooteeb tariqa dafa yeesalaat yoon wi rek وتول طريقه اهن على فقد السادات طريقتهم طريقه المصطفى خير البريات جون ولا بيسلا طريقه المصطفى خير البريات جون ولا سيتو باني خالات جون ونن ني لا يوري وار مل با باسكو غيسنا تي بيندو سيرين توباي من للمصطفى نبيت ما يجدد سنه الخراي واني احمد ايوا مبا كون دا نيو بيسلا واو كون دا فنا كوم خامو ني توتان ci xamul cosaan waxtu woo indee beesa rek mu réer ci xamul cosaan mhm. tàllal mbir mi boo ko xamul saa yu ñu ko yeesalee rek yow nga gëlam mais Cheikh Moussa Touré ñu ngi lay sant parce que li nga wax nii dafa am solo trop dafa <laughs> dafay am xam-xam bu bari bu ciy génn ma koy déglu nii. Hmm. mais day dañuy dégg de euh, maanaam du dégg sax yow dafa am nooy gisee diggante taalibi ak sëriñ yow da nga ci am gis-gis boo xam ne bii xëy na. sa gis ko su bopp la ba nga ñëw fi wax ko at mom ñu bari bari woo na ma sëñ bi de wax jé deugal waaye li wax lépp deugal manam talibi ak señ ki jité ak manam ki womaté ak kimi womat dafa am fof wari su fa yegg wala dafa am limite wala lu wara a xew. Maodo niñ ko xamé rek nga ko xamee. yàlla mo wax ci bopam ne. wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waaw binduma nit ak jinne lu dul. ñu jaamu ñu jaamu kon jaamu yàlla rek lañ koy def. ci jaamu yàlla rek lañ koy def. loolu leer na. jaamu yàlla nekkat di farlul ay ni. Hmm. day so bi kifaaya. Hmm. farlul ay ni la. Hmm. farlul ay ni du lu nit di defal nit. comme du la jaamul yàlla doo ma jaamul yàlla. moo ma àjjana moo ma àjjana doo yàlla du ma yàlla. kon buñ andé àndee luñ wara topanté xana xam-xam. <laughs> wax nga dëgg lu ko dal waxoon yonent yàlla Musaa lu waxoon ko dal. Mhm. ndax du ma la topp nga xamal li ñu dugg la yalla xamal. hmm la lañu topé sëriñ da nga fekk bam am njub amul ta soxla ko nga top ni jub googu mu def ko ci yow nga jub nam jubé nga dem jaamu yalla nga dem jaamu yalla hmm waye yorul ma sa aljana na sama loxo ndax yor nañ ko sama bopp mhm. kon man ma ko yoré man maa ko sakku ci yalla xamaguma amna kum comme bëgg lu ko yoral bëgg ko yor sama bëgg ko yor sama rob ba tax ma koy dig sax xëy nga am yow ndof ga gëm loolu yow xana bala mala dig àjjana xewal yi ma am ci ma dig lako ko deug <laughs> de ah? mo gëna yomb di <laughs> deug de kon bokk jamm yalla deug mhm. ñun sey sax mu daf ñu wax ne laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko ñu bokk jaamu ji yàlla sama jaamu gii moom ko yàlla fay am na soxla bu kenn yaakaar ñun nag loolu lañ gëm. waaye yéen d'accord ci benn sëriñ bi di kenn àjjana. Ah ndax yow d'accord nga ci loolu. det xalaatuma ko man. ah kon jàmm d'accord duñ ci di. déet déet mosuma cee d'accord daa d'accord duñ ci di. <laughs> àjjana yàlla ko moom. ah bi daal na la teg ci yoonu njub. Mhm. teg la ci yoonu yàlla xamal noo jaamoo sa borom. des na ci yow boo jaamoo sa borom yow la boo jaamoo sa des na ci yow waaye sëñ ma wàcc na dafa nekk na sëñ Tuubaa wax na leen yàlla sëñ wax nañu ko di jaamu lu ma leen yàlla sama bopp laa ko jaamu ah bon ah waaw lu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla hmm? dem leen jaamul yàlla hmm? ñu ngi wax suñu wax ne genn bis ne damaa gàgg damaa gàgg ñu ne ko mbàkke fan la mu ne maa salaku fi saqara xaw loolu la ko maa salaku fi saqara hmm. daawuñu déglu te daawuñu. noppi dem togal ma ko na fi asbitaari <laughs> mhm. lolo leen bàyyi ci safara buntu ba ñu xam wax na ak ñoom dañ dem jabu jall amul benn sëñ bu manan wax ne samay taal tok leen ma jabu leen yalla kenn ñi ma ko wax. risque la risque bu rëy la. ah kon kenn ñi ma ko wax de comme ñi ma war leen ma jaamu leen yalla nak kon wax dëgg lu loolu liggéey àjjana. koo mënta faxe ba mu jaamu yàlla noo koy digg àjjana xolam ba du sa xol bi jëmmam ji du sa jëmm ji jëfoom du sa jëf boo mm-hmm. xuñ ne bàmmeel ku ci dugg say jëf nga fay fekk mm-hmm. ah, waaw boo fa jëfu dara jëf yi kan moo la fay fekk yow wax dëgg yàlla Cheikh Moussa li nga wax ni moom li nga wax ni moom alxuraan la bu bu defee tawil bi dañuy daal di gis ne li nga wax lépp mi ngi ci téere yàlla bi parce que dafa am yoo xam ne ci loxo suñu borom la nekk lu mel ne li nga tudd muy na kooku yàlla ci mbiru mbirum boppam la euh, mbiru safara mbiru sunu borom la waaye kon li ñu ciy dégg dégg mooy li nga wax ne sëriñ bi wax na ko te mooy jaamalu mu jaamu wala ma leen yàlla mm-hmm. sans bopp laay jaamul yàlla mm-hmm. kooku booy tawil bi moom mooy kaay la ñu ànd yàlla kaay dañu ànd jaamu yàlla te defe naa Sëriñ Tuubaa defe naa sax moom bind mi sax loolu ah, boo seetee ñi mu yar mhm. ku ci woyofal jaamu yàlla ko gis ñi mu yaral boppam Sëriñ Tuubaa mhm. fanaane julli dëkkee jàngal Alxuraan dëkkee def bépp lu xeetu jaamu yàlla bu leen Sëriñ Tuubaa jaamu loolu dañ ci nekk di sonn dëgg yàlla aywa kon nag loolu rek mën nañ cee jàngee comme li ko kon Serigne Touba ñi mu yar dañu sonn ci jaamu yàlla ah xoolee ni ñu sonn ci jaamu yàlla kenn ku ne fa mu nekk seetal la fay defal yàlla ci xeeti jaamu yàlla mboolem njobootam gi bu fekkoon sëñ bi jaamu lool leen yàlla kay ñu mën noppalu waaye fa sëñ ba jaar lañ teg seen tànk xam ne la war sëñ bi ci yàlla moo leen war ci yàlla donte mënuñu mel ni sëñ ba ñu góorgóorlu ci lañ man kon bu leneen amee nu mu war a tudd kon. bu leneen amee réer rek la. ah ak ndof rek la. déet waay. bu leen amee lu wuteeg loola ak réer la. ak réer la. ah ku awul yoon kay da ngaa yoon wàccoon xanaa réer tax nga wàccoon waaye xanaa kenn du xam ne awoo yoon bi ba noppi nag des ca ah kon léegi bu fekkee am na ko ki wàcc yoon wi su fekkee am na ko muy topp na ko wëlbati gaaw bala bala am déet war na ko de ku la ne yow laa yaakaar su wàcc yoon te nga xam ne wàcc yoon teg ko ci yoon wa loolu sax sar la yow wala yow naka nga layoog moom waaw nga sëñ Tuubaa di wax wayn tëkkul àqulu risqullaahi wante bi kulli samanlaahi walam tatub li tarabil xufraani mujtahid doon fa dàqul miiraaj. est-ce que. kon kay ki la topp yàlla woon ko yàlla. Hmm. ne ko yoon waa ngi nii ñu lañ koy jàmm. soo ni ñoom marché jàkka leeroo ci jàkk ja waa amul suñu taalibe. Hmm. jàkka ja te mi day taxaw nga taxaw. yéen ci bokk yem parce que ki ngeen jublu yéen ñaar ci yem. mooy yàlla. jaamam nga jaamam la ñaari jaam lañ yàllay borom bi wata kon foofu ñoo fay leeroo donte nag sëriñ bi ëpp na taal bi xam maqaama donte mën na koo gën waaye te rek yàlla ma jëm nag ñoom ñaar kenn du ci yàlla moo tax dañoo leeroo ci yàlla. man ñoo fa yem. yàlla. Hmm. ñëpp jaam nañ kenn du yàlla la bëgg a wax. ah d'accord. mën laa gën a xam sa borom mën laa gën a ragal yàlla loolu mën na am. Hmm. waaye nag ki bokk jëm nag màggal ko ñun ñëpp la bokk war xam gi ñun ñëpp la bokk jaam gi ñun ñëpp la bokk war est-ce que te wàccuñu man nga ma ko gën a xam nag man nga ma ko gën a ragal man nga ma ko gën a jege gën a xam gi ma ko gën a xam gën a ragal gi ma ko gën a ragal moo tax ma war laa jege tam nag pour loole nga baaxee ma ko soo mënta mel yooyu xaq sax ma am lu ma mën am na ma mën a te ma doog lu yàlla gërëm loolu daal moom mooy mooy mooy discipline sa mbooloo mi seex Cheikh Moussa Cissé ci loolu nga ko fekkoon. aywa ci loolu lañ ko fekk. Mhm. ci loolu daa ànd ak moom. te it nga ne ci yoonu murit moom daanaka da cee bokk ndax da ciy da ciy juddu. da cee juddu yàlla del ko yee lool. Mhm. bi mu jàngee ba ñib si rek. Mhm. te jël boppam jëblox bàyyam takkaayu di ko liggéeyal guddeeg bëccëg neen laxasaayam ba mel ni juru ko. ci loolu la nekkoon est-ce que ba bàyyam gërëm ko digg boobu leen sax ya fa nekk yëpp sëñ Mor Xoreja moo ca magoon buñ daan dem siyaari ci moom lañ daan daje ànd dem siyaari ci mhm. bi dee ba mantul dem moom la doog a jël sax Moussa di ko mhm. moom bi leen la jébbal boppam sëñ Bassirou kon moom mosul ñàkk sëriñ mosul ñàkk kilifa est eh, dafa am bis ci ma invité la fii mm-hmm. eh, Cheikh Moussa Touré nga wax ay relation yoo xam ne dafa daan ndox ci mm-hmm. lenn ci sa ay wayjur mm-hmm. ak njabootu Cheikhul Khadim te man dafa bokk ci sama aada su ma dee waxtaan ci yoonu Serigne Touba fokk ma tudd sëñ Abdou Lahat Mbakke ndax day sama ku ma def ci sama xol. Eh, sëriñ Abdou Lahad am na ay jamono tool ngeen séqoon bu ngeen ko daan jox wala hadiya woon wala wala wala ci sa ay maam la jóge woon lu xewoon ci jamono yooyu. aywa euh, loolu la ko sabab. li ko sabab waaw. Cheikh Moussa bi sëñ Bassirou Mbacké wàccee liggéey. Mhm. dafa toog ab boo xam ne amul sëriñ. moom Cheikh Moussa Moussa Moussa si dafa sañcoon benn dëkk ca ñoom baatu bu ñu daax Touba Salaam. Mhm. Touba Salaam la ko tuddi woon. fa nekkoon ak njabootam lépp ak taal bi ñu bari sañc fa. Mhm. mu toog benn bis ne dama soobu yoonu góor ña bëgg a jëm ci péeb yàlla ba. Mhm. te gàllankoor te ma xam ne soxna yii ma nekkat ñu ma gàllankoor te bëgg maa kenn xàq. te bu kenn gàllankoor ba dajale këram yëpp na leen su ngeen ma mën a muñal dee ba sama liggéey mat baax na su ngeen ko mën nag yeewi naa leen te boobu mu ñeenti soxna ñëpp takk seen bagaas na si mu yeewi nañu mu jógee fi ñëw daaru bi mu ñëwee daaru toog fa jàng alquran la fa dekkee ak jaamu yàlla ci këram moom kenn mm-hmm. ay gune ndaw yoo xam ne ay taaliba la ñoo xam ne dañ leen joxoon ci kër ga daan nañ xiif bay yalwaan ci biir dëkk bi te dëkk bi dëkkam la taalibe ne loolu def na ci lu mat war juróom-ñaari at ba xëy bis dajale waa dëkk bi yëpp ne la àgg naa ci yàlla ban tey bu jaam ngeen laaj ma yàlla moo ma gën ngeen liggéeyal ma loolu am ñu ko déggee ne sëñ bi kat dafa am jënd ñu ne sëñ bi dafa soppeeku ñenn mag ñu bari takk seen bagaas ku dee des ñenn ñu fa ñu am ñu fa des ci loolu la nekk nag kon ne di woote xam yàlla ak xam ci yàlla ñii nga xam ne ay sëriñam lañ ci waa Mbàkke ci wa kër sëñ ñang dafa jëw waxtu won dañ fañ wax saat mu jot hmm. ki demee kële gi ñëw ba noor bi jeex hmm. am ci ko xam wala rem la woon muy sëñ Modou Khari ñang bu ñe mëna ko sax mosaan ko jamna la yow ci Modou jamna la mëna ko loolu ñu jame mu ko xam-xam bi sëñ Touba def wax ko daan ko def ci jamm daal di ko waxee ci yeen te yeen ñu xolé xoolee sëñ Touba mu ne ko yow tam jam naa la di mu ne ko loo ma jam mu ne ko da doon sëy ba sa borom kër wàcc liggéey te nangootoo sëy mu ne ko xam-xam bii may waxee de su ma xamoon ko ci xam dara tey ma jox ko sama bopp tey moo na ko xanaa sëñ Fallou. sëñ Fallou Mbacké. sëñ Fallou mu ne ko boo demee ne ko tooy jox naa ko sama bopp bi sëñ Modou ñibbee mu toog ab diir waaj ànd ak ay taalibeem dem ba sëñ mu jëbal ko boppam. mu jëbalu ci sëñ Fallou sëñ Fallou bi tëñ moo taxal delloo nag na ko nag léegi da ngeen a sàkk tool sax mu tool bi tey tubaab jimaale fi bàyyi ak njabootam gi ñu dem ruuj tool ba noppi sëñ Fuusa taxaw ci diggu tool bi ne tool bii de sama tool du toolab sëñ Fàllu toolub sëriñ Tuubaa la képp ku fi nekkal sëñ Tuubaa tool bi yaa ko moom hmm. man nag lépp lu ngeen ma daan liggéey def leen ko ci tool bii benn taali mu jox sëñ mot penda mooy doom na ko dañ la defal bayal tool bi de ndax sa sëriñ la waaye ñun sa tool ñoo koy dañ ko bay tool mu nekk ñaari tool waaw xam nga moom dañ ko daan bayal mhm. waaye def na lépp luñ ko daan defal nañ ko def ci tool bi mhm. ñu ne ko dañ bay tool bi ba noppi waaye lañu daan defal dañ la ko defal tool boobu leen bi ñun laata àgg te la sëñ Fall wàcc liggéey mu ñëw da sëñ Abdou Lahad toog moom la njëkk a jot luñ bayal sëñ Tuubaa waxuma leen waaye luñ bay sëñ Abdou Lahad wax na moom la ci njëkk a jot loolu ko takkaleeg sëñ tool ba sëñ Abdou Lahad na fa ay xatti yu baree bari yoo xam ne dafa yónni ñuy war si tool ba waxoon itam ne bu ca bot dem boo fekk na dañ ko daan lebal jiwu waaye sëñ Abdou bi nag tool bu ca bot boo boole ci bot gi ci dem tool boobu nag teraanga ju nekk nag Sëñ Abdou Lahad defal na ko toggee na ñam Touba ba ñamu sotti ñu ne ko andi ko daaru te sori na lool. jox nag ay yére yu dul jeex yu photo yoo gis ñaari photo rek yére boo jël mu sonné Sëñ Abdou Lahad ko ko jox. est-ce que teg ci yeneen wax yu rëy nag. moom Baye Lahad moom Baye Lahad waaw jox ci wax yu rëy yoo xam ne da ko jox yére ak kaal mbaxana da ko boo ko solee toog ku la gis yaram aram na safara est-ce que loolu la ànd ak sëñ Abdoulaye loolu la ànd ak moom loolu la ànd ak moom ba ni mu xëy wàcc liggéey mu doog a dem ci Abdou Khadir te Abdou Khadir Dieye Mbacke moom la mujj a toog ci moom tàllal ko loxo ca Baxdaad. si Abdou Khadir men imam waaw. moom bis na ko tey sax euh, ci la la génnoon àddina ci 1990. gis nga tey tey mooy anniversaire am. ci ci euh, ki fan ak ñett defe naa ni. moomu la mujj a tàllal ci jëmmam lañ ko fekk. ak cukurlaay bu rëy waaw ñuy arrêté sikar bi sëñ bi naan bàyyi leen sikar ba mu agsi ñu sikar ba si toog sëñ bi toog tàllal ko ko yorol ko jébbal boppam bi mu fi jógee sëñ Saliou bii toog fi fekk na sëñ boobu mën su da dem mu yónni xalifaam bii nekk fi tey muy alaaj Keba si ñu ànd ak moom ak lépp ba sëñ mu jox ko boppam fekk mom xamone na sëñ bi lu jitu lola jaxusoon ak moom lu jitu lola gané si na ko lu jitu lola diir bu yag kon fi la jaar ak moom loolu moo sababu tol bobu ngeen do tol bobu loolu moko andi sababu ba léegi ba bisé la tay bi bii la ngi ba léegi tol ba ngi dem ku fi nekkal sëriñ touba rek sëriñ Tuubaa rek ya ko mom ya mom tol bobu le d'accord kon kon kon ko joxal mhm. wala ci abdallah sax wuñ ko joxal bu bindi lettre dafay def ci bopp an khis iyali min ad dalali wa bil halaq halaqi bay du rabbi wam no seex yi abdul ad bakki waaw door ñaan ci wolof leetar yu bari man yoron nako ba sëñ talib ñi tay waaw d'accord kon Cheikh Moussa suma la suma la déggé li ngay wax ni moy yéen kët yoonu mourid kët mom yag ngeen ci yóbbu ngeen ci manam manam bokk ngeen ci bokkin woo xam ne wi wu mucc ayib la ba noppi tamit nga ne sëriñ bi li mu jàngale diggante taalibe bi ak sëriñ bi moom mooy wommat jëmale ci yoonu yàlla képp nga jàpp na yi tamit kenn ku mën a doon ku ne koo xam ne kii nekkuloo ci loolu kaca dafa réer mm-hmm. lii waajib ci kala doon wommat mm-hmm. mooy mu dellusiwaat teg la ca yoon wa mm-hmm. te ñu gis ne léegi fi jamono bi toll. Mhm. pëcc xóob yi dafa bari. Mhm. li eh, Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum waxoon ne. Mhm. dañuy ragal Serigne si ëpp taalibe yi. jamono <laughs> maanaam ndax ñu koy woote ñëpp dañoo xaw a mel ne man. léegi loolu ban jàngat nga ci am yow. jàngat bi mooy nit ñi dañu jëm yow tuuti. te gis seen xel tuuti. parce que dafa am loo xam ne ci nit ki la aju ci ngëm-ngëm la aju. Kamu nga ya- yang yang yaa ngi wax yoon léegi maanaam tarixa ku ci tënku rek yow la neex. ci lu wér. yow la neex engagé nga man tijaan moom a neex moom lay doon seet ka la doy nga ànd ak moom. su la neex nga di génn naa ca. li ci nen ma. tarixa murid yow la neex nga engagé man murid laa bëgg moom laa gëm seet ka la neex nga jox ko sa bopp ànd ak kon yow la neex la ci ci boole sa am ay wa su ko defé nag kon nit ñi ño wara xolaat bu baax seetantal bu baax ndax damay faral di wax ne hand ñett rek la hand ak yow ci li nga xam li nga man balinga li nga am dañoo topé nit damay top ngir li nga man ma fexé man ko ni ko mané moy métier ma top la ngir li nga xam ma fi xam ko ni ko xame moy xam-xam mhm. ba ma top la ngir sa am xam ma fa nga may fajal sama soxol bok ci am xam bi li moy takke ni tak nit ak top mhm. waaye ko ngir xam-xam toppaloo ko ngir am-am top toppaloo ko ngir man-man kon loko topé dama neex rek da baxna di am nga ci droit di <laughs> waaw man du la kenn moo ma neex kay. lu ci ne ma ah, ku ne ah, waaw kii moo ma neex moom laa gëm moom laa topp moom laa doyloo am nga ci droit loolu ci fekk it baax na waaye la gënoon nag mooy topp lu lay jëriñ. topp lu lay jëriñ man ngir xam-xam ngir am-am fexe ba am lu jógee ci moom ñëw ci yow ci xam-xam wala ci man wala ci am-am. Mhm. nga mën a jëriñ surtout nag ci wàllu yàlla. waaw surtout ci wàllu yàlla. waaw mura yang wàllu yàlla mu royante dulu, la waaw loolu nag loolu ak lu jamono yaatu est-ce que nit ñi nangu ñu womat leen doyadi. wala dañ leen a wala nit ñi te Abdoulaye mos na ne Touba de kenn mën fekk laaj ma nga may kon moom dañ jàpp ne sëriñ bi àdduna la boo ñàkkee na ko ñaanal ma boo feebaree na ko ñaanal ma boo nekk jafe na ko ñaanal ma ku danga da nga foog ne sëriñ bi pour ñaan la hmm? dafa am ne ñaan leen tax sëriñ bi moom du ñaan kat sëriñ bii du ñaan kat bii borom xam-xam la xam-xam lañ ko topp ak njub su ko defee ci yow nag loo doon ñaan yàlla yàlla mën la ko may ndax da jege si borom kon du problème addina la ñuy toppee sëriñ te yomal xiyaam la ñuy toppee mm-hmm. pour ëllëg pour ëllëg la ñuy toppee sëriñ waaye problème addina yii li yoon wi tëral daal nañ la fexe nga jaar ci rek waaye ku jalgati yoon bu ñu lay teg yoon si mënu ca dara wala bu ca mënee dara itam tin na koo xam ne tooñkat la. ah ah waaw. di lekk alal jàmbur ñu waroon ko tey nga tin ko ba tëñuñ ko dafa it bor ba. est-ce wax nga dëgg de. Ah? te bor ba topp ko. nga tooñkat duñ ko dimbale. Mm-hmm. waaw tooñkat duñ ko dimbale. Mm-hmm. kon yow li ngay li ngay li ngay wax taalibe bi rombul yàlla comme li nga wax léegi yàlla moom dara du ko romb maanaam fi nga leen ñot di jëmale daal. Mm-hmm. mooy ilallaahi jëm ci yàlla rek. loolu lu am am solo la. Euh, Cheikh Moussa Touré yow euh, sa principe mooy danga nga dajalee taalibe yi naam. gis nañ ko ci yow. di nga di faral di waxtaan ak ñoom mënta ñàkk. am na sax gàmm gu yoraan def fii ci Medina xaw ma nag ba xam mi ngi am ba léegi déet. loolu lépp itam li nga daan wax nit ñi mooy wax leen dëgg est-ce que sa discours yooyu ngay ten ngay tenir yenn taalibe yi mel na man daañu ko bëgg a déglu bu fekkente ne da yàq seen affaire. wala kilifa gi nga xam ne daa mel na man mu yàq affaire mm-hmm. boo defoon naa yéen ñaar moom du ngeen. <laughs> waaw mën nañoo bañ waaye fekk jubluwuñ ci nag moom mu yàq affaire am jubluwuñ ko ca. man ah? ma fekk jublu ci ñun loolu. waaye nit ñi ko leen dajale soo leen waxul dëgg loo leen di wax duñ ay dof damay faral di wax ne di fen nit ki ak di ko nax ak di ko xuruj mhm. bis dana jot mu yeewu te keroog ba mu yeew bis bu mu yeew kër mu mhm. di ko wax dëgg mu lay bañ ti la daw bis dana jot mu yeew te bu yeew xam ne yaa ko wax yaa ko doon laay biir mhm. kon wax nit ki dëgg doonte la da nga ci am jafe-jafe wala sax la daf la def lu nekk lu ko neex mën la ko wax waaye moo gën di ko fen ak di ko nax wóor ndax dana moo si yow te bu yeew rek la ndax xam ne danga ko doon nax kon wax ko dëgg rek bu ko nangoo baax na bu ko nangu itam rek wax ko dëgg rek bu yeew xam ne ak li mooy dëgg sëriñ daf ñu daan wax ne bépp sëriñ bu ngeen dégg dem leen ngeen seeti ko mm-hmm. siyaare leen ko màggal leen ko gëstu leen ko su ngeen fekkee mu yor li gën li ma leen jox te Moussa ne bàyyi leen li ma leen jox te ànd ak moom. est-ce que ah moom loolu la wax fooku yeewut taalibi ci buum na ko yemal fii daf lay tinki na la addinaa yàlla yaa ngóob foo dégg mbaax gën gi ma la joxuti ko. waaye nag duñ ko gis. lim ñu jox. daf leena a doy. lim ñu jox gisaguñ dara lu xam li hakka sa xemam nañ ko wal lu lu gën lim jox luñ gis rek lim jox ñu gënal ta lim ñu jox ci lañ bëgg dund ba dé ci yomal xam mom lañ bëgg dékalé dekkaale. est-ce mu leer boobu. te di wax deug comme li ngay wax ni mais est-ce que bo yaakar nga né way nak yow rek sey talibé duñ la ba ma bu ta sëriñ bi bu waxé talibé yi deug gi gaay yi ko nak wala lolu wala wala bu ñu andi ku ñëna rek. Cheikh Moussa keroog boo ma waxee dëgg dañu rocce koon ah dañoo daw. daw kay fekk na booba lam dajaloon ci taalibe baayam yëpp moom lañ gëmoon dañ ko teel a bëgg teel ko sopp teel ko wóol ndax moom yàlla dafa judd rek jub. Mhm. waaw Cheikh Moussa dafa judd rek jub ba tax na mag yi ne àndoon baayam yëpp ñu ko doon xol di ko bàyyi xel keroog bañ gisatul baayam rek ñëpp dañ ñëw tàll ko loxo. jërëb ñu ànd suñ bisu otel daan jël boo xam ne. téeméeri nit ñoo cay dugg dem liggéeyal ko tip xat mu jot kon amoon na mbooloo mhm. waaye keroo ba mu taxee woote li mu woote mag ñi ci ëppoon ñëpp keroog lañ ko bàyyi waaye bañ ko bàyyee yàlla jox na ko ñu gën mag ña ndax jox na ko ndaw ñi mhm. te yaakaar naa lu mag ma ndaw ko ko dàq foofu aywa kon bul bañ ñu ñàkk nit ñi boo ñàkk ñi am lu gën ñi ba ñàkkee wàññiwu ko dara lu ko wàññi ku xam ne boo ñëwee liggéey sax daf ne bu ma kenn liggéeyalati soxlu saa la soxlu si doole kooku boo ko dee lu ci yoona hmm. ah. soxlawul sa alal soxlawul sa alal soxlu si doole na la jox yàlla rek. bis jot na xale yu tuuti jógee seen kër way jur ñëw ne dañ ko liggéeyal ci beneen dëkk lañ jógee suba teel mën leen dem leen seen tool way jur ngeen liggéey leen ba wàcc li ngeen moom su ngeen ma ko andee ma jël waaye lii seen way jur ko moom jox leen ko. est-ce que. Ah? kii soo ko bayee lu mu koy wàññi. yaakaarul la far yàlla indi andi ñeneen. waaw. ñu ànd jaamu yàlla. ñu ànd yàlla. d'accord léegi kon man jàpp naa ne euh, su ma la comprendre te defe naa ne sax loolu. Mhm. daañu ci mën a jubóo maag yow. Mhm. mooy lafi ne woon ca mhm. teg sa tànk. teggiwoo ko. ci kilifteefu Cheikh Moussa Cissé bi nga xam ne ci yoonu Mouride. wax nga rôle yi ñu ci joué yëpp. ba ci tool boobu nga xam ne ku fi nekkal Cheikhul Khadim tool boobu ci moom la jëm yàlla dénk la tamit ay taalibe ndax loolu lu ma lu ma lu ma lu ma fekke la mas naa ñëw sax gàmmu te wax dëgg yàlla mbooloo daje won na fa waaye ca mbooloo yooyu yëpp yow la nga leen doon wax daaw moom nga leen di waxaat ren donte ma leen mën naa am xanaa yokk ca waaye dara du ca wàññeeku waaw xanaa yokk ko maa maa ngi ciy dikkaat léegi incha allah gën a leeral waaw waaye lañ leen wax parce que mënoo dañ wax leen ni tey suba nga wax leen wuteeg loola. wax nga dëgg de. xanaa kon dina kii dafa feebar. da ngay yokk rek. yokk a gën a leer rek de. waaw pour suñ xam-xam yem daal. Mhm. ak suñ gis-gis. Mhm. ñu dox jaatalee ak moom. d' accord mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi ci émission bi nga xamee ne moo di yoon wi. ñu fi dalal itam euh, Cheikh Moussa euh, Touré. ñu xam ko bu baax a baax itam mu nekk ko jëmm joo xam ne ji yàgg nañ ko dalal fii ah, ci ay wax yu am am solo yoo xam ne yii daf koy wax di ko jëmale ci taalibe yi ngir ñu jaamu ji yàlla bàyyi naxe bi baat boobu damaa mas a dégg nga wax ko. te boobu da nga li naan da nga jël sa courage à deux mains ci bu doon ci français maanaam da jël sa fitu bopp daal ne nañu bàyyi naxe yi kon daa mel na ngaa gisi naxe wala lu koy nuru walla da ngaa jàpp ne loola bu dul li naxeet jëmul kër nga artu leen ban ban gis-gis nga ci am waaw loolu de ñoo ko waxoon te duñ ci dañ dañit naxe moo baaxul waaw ah, d'accord lool d'accord nañ ci waaye ku nangu ñu nax la it nag des na ci yow ah est-ce que moo ko nangu ah waaw mën na ko bañ a xam de waaw ah. waaye na su boobaa mooy la ma wax rek na dañ la top kit li nga wara wax ak ñom wara leral ak ñom waxo leen leer lol ndax nopi rek setan leen ndax bu yoma xel doo ko layoog ñoom ok bis bo boko baye xel taragal yalla da nga jëm bay sawar hmm soko bayul xena wala ragul yalla nak ah bu yomal xiyaami rek yalla tiñ kon yow bis bi ngay dawlo ngay dawlo lolou motax nga artu dama leen koy wax na leen ko ànd ak mbooloo dama def so lépp lu ñu leen digal nga def lu ñu leen tere nga bàyyi su yomal xiyam yàlla du leen laaj ñun lay laaj waaw waaw ki nga xam ne loo ko digal mu def loo ko tere mu bàyyi su yomal xiyam yàlla du ko laaj yow moom lay laaj yow mu doon digle ndax danga doon diir sa bakkan ndax danga doon digle sa bëgg-bëgg ndax danga doon digle ci li yàlla digle mm-hmm. loolu rek man digle li yàlla digle mbaa digle nga xam ne yow xakk sarik xëy na sa bakkan la mm-hmm. waaye képp ku digle it li yàlla digle tere li yàlla tere bu yemal xeex bu lu yàlla laaj nga tontu ko waaw kon nag sëriñ bi loo rek la na digle li yàlla digle rek tere li yàlla tere rek ba bu ñu ko laajee mu tontu ku ko jëfe itam bu ñu laajee nga tontu ah ku ko déggi nag dem jëfee lala la neex ne des na coow da naan taal bi dégg lañ wax mm-hmm. loolu lañu wax dégg ndigal mooy ndigalal kan du ndigalal sëriñ bi waaye ndigalal yàlla li la bi la sëriñ bi jottali te duut moo la digal waaye yàlla la digal te xamoo ko sëriñ bi jottali digal loolu leen te nag moo la cay jiitu it nag d'accord euh, ma fàttali mbokk yi ne ñu ngi fiy dalal Cheikh Moussa xam naa jamono yi ñu génn sa ñaari taalibe wala ñoo xam ni bokkoon nañ di jàppale say taalibe mu di kii di Papa Ahmed Guèye bokk na ci ñu wujji seen boroom yàlla na yàlla xaaral ajjana ak ki nga xam ne moo di Misba Aydara mhm. ñun tamit ci weeru koor wi ñu ngi leen di ñaanal yàlla mhm. yàlla um, jéggal leen mhm. wax dëgg yàlla ñu amoon taxawaay lañu te amoon solo lool ci yow moo tax nag fa tabaarakallaahu ñu joxoon nu kayit bi eh, ñu xam ni fàttewul leen leen te yéen a ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yóbbu leen ajjana ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm sëriñ bi ci catu waxtaan yi moom lañ may signalé nii. Mm-hmm. looy jeexare tàkk nag léegi. sant yàlla baax di la sant di la gërëm tey jéggulu ah warkal ñoo ko bokk. dégg lu xam ne wuute na ak ko gisee ñu ngi lay jéggulu leeral lañ ci jublu. Mm-hmm. ak wane bañ xam li ñuy dund ak li ñuy wax rek. rek waaw waaye du dara loo xam ne dañ ci jublu ndax nit wala tooñ nit. Mm-hmm. déedéet waaye neex ak lu gën yàlla gi damay faral di wax ni fekk yàlla ngi gërëm ku gërëmal yow yaa xam. tarkal waaw tuwaat nag sant leen gërëm leen nuyu suñu xalifa laaj Kéba Cissé di ko siyaara di ko ndokkeel ci koor gi. alhamdulilah ak njabootam gi yëpp. sëñ na Aliou ak mboolem ay rakam waa dëkk yëpp di nuyu suñu xalifa général di ko ñaanal muy sëñ Mountakha Al Basir. Mhm. yàlla yokk fanam lool. yàggal ko lool tax ko wér. amiin ci yoon wi yal na ko matal amiin tabaaraka yal na ko yàlla dimbale jërëjëf yal na ko yàlla dimbale amiin te matal yéeneem dañu ànd yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm kon nag Cheikh Moussa ñu ngi lay bu baax a baax baax itam yal na yàlla defal ñu sutura wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu